moo Modou Kara ma sax bu koy séddale naa yóbbu ko Iran am na xam ne bi mu ko indi fekk may liggéey heure bi waa ji indi ko ni ma sëñ bi ñu yónni woon kat tàndarma pour ñu la ko mais def na ñaari affaire yu ma neex mooy réaction bii mu def nii la sang di def la ma ci gën a neex mu ni mënumaa wax li ma wax di waxal leneen oh, am na ñu amul control boobu. am nañu amul contrôle boobu ndax dem naa ba ne est-ce que duñu defal conférence suñu diiwaan ak yeneen kon du ma wax lii waxaal leneen saf na ma lu ma ko jàppoon dolli naa ko man nitu jàmm daf ma neex mais bu ko neexoon waxee neneen bokkul ci tariixa bi yëlifunu ko du sunu doom kilifa la boroom mbooloo la boroom doole la am na cëram beneen bi ma gën a neex ci sëñ Modou karaa mooy Kara Mbóoj biñ ko tuddee am ngénte ci biti réew mu jël avion dem tuddal ko doomam Kara ku ma neex la man topp gëstu laa ci bëgg nit bu ànd yow da koy bàyyi xel yëg dafa am solo xam nga léegi-léeg nga am ñaari fara sa yaay ne la tee ngaa jël màbb ngeen ne ko baax yaay màbb baax na mais yoro yoro dafa am dafa am yërmande te dafa am yëg xam dafa nekk xoolal kii jur ko ni njureel méttee yaay ëmb im xalaatuñ ko du sëñ Modou Kara Mbacké ñu tuddee la ko xale ba di góorgóorlu ba dem biti réew am fa doomam yëgal la papa am naa doom ngeen ne baax na jël avion wàcc fa tuddal ko doomam jël avion ñibbisi Kara kenn gënu ko topp geesu àllaaxira bu ñu ut sëriñ looloo tax de ay yëppar yëppar yeeg tappal yi taxul ni ut sëriñ de ak di jaay fullaa ka këj nit ñee ka def yu tappal yooyu kenn taxul kenn topp kenn nit boo koy topp boo koy topp dalay geesu waaye fulla lépp ko am koo gis am na ndey am na baay am na famille yow xaddi sa sant yu da nga ko bëgg a wàcc am nga sant bu la gën a yoro jàll mi am na sant bu gënal jàll man sama bajaan ji këm benn sant dama gënal topp ma nit ngir sant topp ma la ngir askan topp ma la ngir jub sama baay baax na sama yaay baax na sama famille baax nañ te mbaax laay woon waaw yëg ah, dafa baax sëriñ Babacar Si dane topp buñ ko doon jaay geestu mooy njëgam safoo buñ ko doon jaay faale mooy njëgam karaan li mu def bari na ku ci réew mii sa taali bi di ngént defal la lu ne te jaaroo fa sa doom demul luy ndeyam yow nga xam ne li la wër yëpp doone maa ko ñaq ay ñaqi jàmbur yu ñu dajale jox la ko yow danga am loo wax yow kay ñi la wër ñooy góor mais yow da ngay waaru yow dañ la yóbbaale bi yi ngay sol dañ la koo jox kër gi nga yor dañ la koo tabax oto bi nga yor doon dama ko jën dañ ko jën may la yow sa lépp may la tudd yow yaay président daayira may yow dañ lay may rek yow lay wax kara buddeekoo fii ba biti réew xaw ma la xaw ma ba biti réew wàcc maa ko seetaan muy dox gars yi ànd ak moom muy taw karaa bi xuus ba yegg tuddal ko doomam wan ko ne sa papa gënumaa gore parce que ma laa tuddee nga ñëw fi am doom soxla ma tuddal la may bañ a ñëw kon damay tooñ sa baay dem tuddal ko doomam waññeeku ñibbi siwaat lii xewaat karaa waxee nii karaa kenn gënu ko kenn gënu ko yëfu noobul la def waaw téye noobul karaa